xam mat ba siroo tey xam trappé mandal ga mépp nekk ci moom xal ma jug di sàmmal ñun ñu gëm xafal moo tax sa galaay sa baay Abdoulaye jaam yi duñu jeex tukka Makka ñëpp la dem ab yaay général pour Makka jox la médaille naan la yaa xabibi nga borom xafaaro bay Abdoulaye Abdoulaye gëni woon Abdoulaye gëni la ci yéen jàppaleen ko maay moom maa ko yabal sunu def wadi lay gaa sai kira mu domin